waaw salaamaaleykum salaamaaleykum Malick maaleykum maa ngi ziar waay maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm bu baax waaw dama dama laa woowoon léegi ndax dama gis ay rumeur ci internet bi ñu bari woo ma bind ma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 te laa ko gën a ndaw si xoolal aada moom. ko teg palaasu yaay. Mhm. teg ko palaasu jigéen. Mhm. teg ko palaasu rakk. Mhm. est-ce que xam nga li la wax. dëgg la dara du ko metti incha allahu taala man je la là pour la défendre pour taxaw ci kanamam. xam nga ñeneen ñi nag. noonu la sax ci moom di wax di wax. noonu yi. seen euh, mbébét. incha allahu taala yàlla du leen ko may. waaw dañu tas dañu toog di xaar. dañu toog rek. waaw bu ñu xëyee nag internet Sénégal moom xoolal.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 aw ma yoon am na ñu doon ni bu ma duggee Amérique ñu jàpp ma maa ngi baax. mo loolu ay yëfu soxor la rek nga ko quoi. waaw ah. léegi nag wax tamit encore dama leen yoreel bor maa ngi leen di xaar ba taxaw ñu ne dama leen yoreel bor wala ñu dama leen yoreel pour ma fay leen ñoo ngi yéex kay rumeur boobu dama la cee fàttee laaj sax da damaa xam ne lépp ay kii la moo tax ma bàyyi mu sedd laajuma la ci sax. <laughs> temps baa ngi dem de te bor bi lay gën a yàgg nañ ñëw boog balaa affaire yi jeex <laughs> baax na Malick maa ngi lay jaajëfal jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars damaa gis laay fu Jessica léegi muy jël ay nit Amérique di leen woo appel pour ñuy wax ci Malick naan lu naaw ku dugg danga naan Malick naar sàcc la Malick naar wéyu la daa sàcc xaalisu jàmmoor maanaam dañuy yàq deru Malick naar rek Malick naar du ko baax Amina Poté da koo a bàyyi Amina Poté dafa war a moytu Malick yéen. yéenay sëy wala Amina Poté mooy sey yéen a toj seen lëfal ndey yéen a toj seen data ndey yéen Amina Poté Malick Naar takk ko ci faratas yàlla sunnas Muhammad bu dee sàtt bëgg na buy jaay dorog bëgg na mbëggeelam la mu bëgg ko ngeen koy tasloo te yéen amu leen jëkkër te xar xamul li ngeen di dund seen biir kër yéen gën a sonn ci àdduna bi loolu mooy jalousie si jigéen maanaam bëggoon Malick kat la wala mu takk la te amoo ko ngay yàq deram yow Jessica yow mi jël waa Amérique pour ñuy yàq deru Malick Naar li nga fi def kenn du ko def Amina Poté du ko xalaata def yow yaa fi am jëkkër dem ba pari Alex Thiam di la tëddee vidéo yaa ngi fi kaa yaa ngi fi yow yaa am jëkkër joge ba Torino dem ba pari Alex Thiam di la tëddee na kat na la yow yaa jóge Torino ñëw ba fi nga xamante si ni moom mooy Paris sa jëkkër bàyyi wala de nga tondoon teg sa jëkkër ñëw sa ñëwu bopp kon yow Jessica amoo loo wax Jessica yow sa kaa sa bopp nga war a kaa ku am jëkkër dem di xoole yeneen i góor bay fanaanoog moom Amina Poté foog naa defagul loolu ci réew mi de déedéet caga yi ngay jël nag pour ñuy wax lu ñaaw ci Malick naa ak sëyu Amina pote bi da ngeen di sonn mais Amina Poté Malick la bëgg Malick bëgg Amina Poté mais lu ci seen yoon ñaanal leen sëy bi mu barkeel avancé mais ngeeni di kaa mu jaral leen ngeen di dem jëlee ay nit Amérique pour ñuy woote di yàq deru malik ak di conseil Amina Poté natas natas natas loolu tasul sa yem de Amina dafa bëgg Malick Malick bëgg ko lool sénégalais loolu kenn mënu ci dara ñaan leen yàlla sey bi bàkkeer ngeen ñaan yàlla yàlla may leen ay jëkkër yu baax ngeen ñaan yàlla yàlla may leen jëkkër joo jabar joo xamante si ni day nangoo toog du tàggoo di dem Paris di seeti yeneen góor te am jëkkër jabar joo xam ne day taataan jëkkër rek te fa toog te fa yem te gatam du nekk ci problème mu jàmmoor Amina jigéen la di sey Malick du góor yaa ngi dégg takk ko ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad yàlla yàlla na sëy bi barkeel keneen ku ci wax lu ñaaw yow la neex nga wax ko mais ñoom ñaar ñi ngi sëy lu neex lijjanti leen seen lëfal ndey wasalaam duma tas suba duma tas gannaaw suba aadama sama jëkkër dama koo bëgg aadama Malick dama koo nopp aadama Malick sama xol la aadama ñu bari bu ma sañoon ma tas ak Malick mais kii damay sëy ba dee lii la ma Amina pote wax Malick tegal ma ci lan dama bëgg sama jabar mooy sama yaay mooy sama lépp moom lay taataan moom lay àndal lu mu wax laa wax lu mu waxul waxuma ko Malick mooy wax de nee na dafa bëgg Amina Poté Amina neen du ko bëgg ñoom ñaar ñëpp laa jot téléphone. kon journaliste yi bind ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wax nanoo xam li ñuy wax ñaar ñii tasuñu danoo bëggante bien vrai que nag problème am na mais danoo bëggante Malick Naar nit ku baax la. ku mën a dimbali nit la Cees ga mu dëkk jooyuñu président ñu ministre mooy seen makki sàll mooy seen Amadou Ba la war Cees man la la la war Saint-Louis Saint-Louis ga mu dëkk laay wax jooyuñu président jooyuñu député jooyuñu Macky Sall jooyuñu Amadou Ba Saint-Louis li mu bëgg ak li muy laaj Malick Naar mi ngi leen koy defal nanu bàyyi soxor léegi nag xadiloo ndàmba luy jig njàkk moom mooy njàkk Amina Poté audio yi génn na fuyite na jabar ji dëgg feef rekk lépp am na mais moom nee na du bàyyi Malick Naar tey